aw laaj wu yaatu woo xam ne ñoom tim war nañu ko joué ngir nag campagne boo xam ne ak dal lay am ci biir journal bi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Aliou Sall maire bu Guédiawaye nee na lu jëm ci wàllum provocation bi moom nag du jóge ci ñoom ñoom ñi nga xam ne ñooy waa benn Bokk Yaakaar Aliou Sall nee na wax na ay militant nee na leen lépp loo xam ne jëm na ci wàllum jàmm bay boo ngeen dox ci te bu leen kenn provoqué maanaam ba ngeen nangoo yéen kaay gi du l'observateur xëy di ñu xibaar naan ñu élection locale xaw ma kan moo ko waajalu waaye nag njiitu réew mi di président Macky Sall moom ma ngi koy waajal ndax ñetti milliards lu ñetti milliards la Benno Bokk Yaakaar génne ci élection locale yi ngir nag demee ko campagne yéen kay gi de la Tribune nee na élection yi maanaam su commencé administration bi du dem jéng du dikk mbay laara maanaam mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci administration bi fi la ñuy bàyyi administration bi dem defi campagne journal bi nee na en tout a ci diwaanu Ndakaaru li nga xam ne mooy embouteillage bi maanaam dina fi am dina tagga témbe lool maanaam dem beeg dikk bi jamonoy bi kenn du mën a dem du mën a dikk fukki fan ak la xibaar naan ñu Adama Faye mi nga xam ne mooy nag rakkub jabaru njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag def na lu ne weng maanaam te dara fekk ko ci yéenekaay gi nee na lu toll si ñetti at a ngi nii Adama Faye nag nekk ci ab boo xam ne maanaam ab jàmbur moo ko moom jàmbur boobu dem na fa mbaxana doonee benn ñi nga xam ne ñoo ŋànk yoon daal di wax Adama fay na ko terrain boobu moomoo ko maanaam jugeel ci terrain bi waaye nag Adama Faye ba léegi dafa lànk kandaare lànk ba sa naaj waa daal def na lu ne weng te da la témoin mooy wax nee na Adama Faye mi nga xam ne mooy rakku Marème Faye Sall jabaru njiitu réew mi di président Macky Sall borom Fatick yéen a kaay gi de la na mi di président Macky Sall ni démb ma ngi mooy benn nga xam ne nag ñooy association sàmm jikko yi maanaam Macky Sall inauguration juma nga xam ne doon na ko def ca diwaanu Fatick mooy wan sàmm jikko yi nag ne leen man Macky Sall maa ngi ci diina ji journal bi nee na lu jëm ci wàllum politique ni ki démb Macky Sall daan dànkaafu ñi nga xam ne ñoo def ay liste parallèle ca diwaanu Fatick yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa mi Mignane Diouf forum social la moom nag daat nay wax ne ndoxum Sénégal ndox mi seen woo ndox mi ni ñu ko yoree dara baaxu se ñi nga xam ne nag ñooy waa Suez maanaam dañu leen indi Sénégal ngir nag ñu saafara jafe yi nga xam ne moom la askanu Sénégal di dund ci lu jëm ci wàllum ñàkk ndokkee ndox mu bon mi waaye nag ñii nga xam ne ñooy waa Suez ñoom dañoo ñëw nag ngir ci lu jëm ci wàllum xaalis maanaam dañoo ñëw ngir am xaalis au lieu que ñu ñëw dindi nag jafe yi nga xam ne askan wee ngi koy dund ñoom nag dañoo ñëw ñoom waa Sen'Eau ak Suez ngir nag dund ci ndoddul askanu Sénégal te loolee scandale te waruñu ko nangu yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na liggéeykat yi nga xam na ñoo nekk poste ñoom nag mer nañu ba mara détaillé mer nañu lool Abdoulaye Bibi Baldé nee nañu Abdoulaye Bibi Baldé délinquant financier la financier dëgg mooy Abdoulaye Bibi Baldé li nga xam ne nag moom la Abdoulaye Bibi Baldé def jamono ji ci diwaanu poste scandale la boo xamante ni musiba ma bu kumb la maanaam ay wuruj yoo xam ne fu ko waaye nag daanoo koy passé liggéeykat yay wax liggéeykat yi nee nañu Abdoulaye Bibi Baldé poste ma ngi yàqu moom muy jéem a nag diggante recruter maanaam mafia bi nga xam ne moo am poste jéggi na dayo ñu ne déeta waay marché yi nga xam ne moo am poste Abdoulaye Bibi Baldé daf koy jël di ko jox ñi nga xam ne ñooy ay njabootam loole nag tax na nag client yi nga xam ne ñoo doon dem poste jamono ji kenn amutul confiance ci poste yéene kaay gii di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag ma ngi inauguré rek waaye nag Serigne Thiam dib jàngalekat ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nee na naam Macky Sall nag ma ngi inauguré waaye scandale yi nga xam ne Macky Sall def na ko loole nag kenn mënu koo làq yéen a kaay gi xëy di ñu xibaar naan ñu am nay expert yoo xam ne ci coalition Yewwi Askan Wi la ñu bokk ñoom nag yàggutoo njaay danañu amal ay ndaje yoo xam ne dinañu ci leeral lan mooy monnaie locale yéen a gi da leen ko nee na police yëngu na ndax 35 ak 36e promotion ñoom nag dañoo leen a fàtt nag ci jëm ci seeni avancement moo tax ñoom ñuy yëgloo yéen a kaay gi di réew mi ko di cee nee na mbir mu doy waar a doy waar moo xew fi nga xam ne maanaam mooy Rufisque Cité Bata foofe nag dafa am benn waay boo xam ne dafa amoon jabar takkum ñaareel bi mu takkeem ñaareel nag aaw bi mer ba maara detaali si la ñu jàppante waaye dafa nag ma nga urgence yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Aliou Cissé moom nag tontu na Macky Sall Aliou Cissé nee na Macky dañoo ñëw fii nga xam ne mooy Cameroun ngir nag jël coupe d'Afrique bi yéen a kaay gi di sunu làmb xëy fekk fa Modou Lo wax Ama Baldé nee na Ama na leer na man Modou Lo maanaam duma koy ragal weer wu ma juddu sax ab ragal juddu wu fa Modou Lo nee na Ama Baldé su ma demee nag ba nar a ragal am mbër daa di bàyyi bëre tekk sama ngem société nationale